doon jaay tey mu lamb diggante ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène ak kooku di Bombardier bu Mbour mu nar a doon combat bu nar a métti ndax ki nga xamante ni mooy Bombardier ginnaaw ba mu defee li nga xamante ni mooy open de presse moom nag jàmmaarloo na ak ñi nga xamante ni ñooy journaliste yi moom nag am na ay kàddu yoo xamante ni dénk na ko kooku di borom Taïchinga borom Pikine bi nga xamante ni moo jëloon li nga xamante ni mooy couronne roi des arènes bi si kaw ki nga xamante ni mooy Bombardier bu Mbour waaye nag Bombardier daa mel ni dafa dànkaafu wala sax dafa soxla. ki nga xamante ni mooy euh, Eumeu Sène ginnaaw nag ba mu dañ ko dékkee li nga xamante ni mooy euh, micro yi moom nag nee na Eumeu Sène na xam ni carrément du ma ko may dara du ko xaar comme rek man maa soxla combat bi euh, na ma xaar dinaa jël si li nga xamante ni moom rek laa moom loolee la bombardier wax ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène kon nag mu a doon combat boo xamante ni combat bu nar a neex rek lay doon waaye nag bu ñu sukkandikoo si ki nga xamante ni mooy Barkala moom nag mooy président bu écurie Tay Shinger nee na nag ki nga xamante ni mooy bombardier moom rek dinañ ko daan waaye nag buñ ko daanee ba pare nañ ko gunge ba buntu Pikine rek bàyyi ko mu dem Mbour kon nag komba bu nar a neex lay doon ginnaaw ba ñu déggee seen kàddu ñaari mbër yooyu moom nag di uh, Eumeu Sène Eumeu Sène nag xam na bu baax lan mooy enjeu combat bi ndaxte jëlee na ñaari yoon défaite wala sax am na ñaari yoon défaite yoo xamante ni dafa uh, tegaloo si kanamu ñi nga xamante ni mooy ay adversaire am moom nag naam sax daanuñu ko waaye nag dañ ko daan si li nga xamante ni mooy avertissement uh, par arbitre kon nag mu nar a doon enjeu bu métti loolu si ki xamante ni euh, mooy euh, Eumeu Sène kon nag combat boobee nga xamante ni moo dox si diggante euh, Eumeu Sène ak Bombardier ñuy amee foofee ca arène nationale le 27 mars rek lay doon mu nar a doon combat bu nar a neex nga xamante ni ñetti pan rek moo si des ñaari mbër yooyu laale si arène nationale kon nag mbokk yi jàpp leen ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène dina laale ko Bombardier waaye nag bu ñu fa jógee dañuy wax si li nga xamante ni mooy bi di Modou bi nga xamante ni jamono ji kenn ko si làmb ji lu ko waral nag kenn xamu ko moom ba mu jëlee lii di roi des des arènes ba léegi war na am ñetti at te laalewul ak benn adversaire am mu doon loo xamante ni ñu bëri yéen ci yàb bi mook ak Modou mook ak ki nga xamante ni mooy Ama Baldé dañoo waroon laale le 13 bi waaye nag ñu bëri dañ ne Modou Lo euh, dafa euh, daw euh, làmb jooju ndaxte bu sëggee Ama rek day mujj ñàkk combat am sax moo tax Modou def benn stratégie ngir daw combat boobu nga xamante ni dafa waroon laale ak seetlu bu ndaw waaye nag kii di Siteu kii nga xamante ni mooy Sokh moom nag dina daje Franc le 19 bii nii rek ñu dëgmal muy le 19 juin atub atum 2022